ma nuyu la rek comme euh, toujours nuyu nuyu wati mbokku téléspectateurs yi euh, teewlu leeru jamono comme chaque lendi rek ma ñëwati ci actualité people yi avant lo <laughs> <laughs> avant loolu balaa loolu it may euh, masaw ñi nga xam ne dañoo nekk ci ndox mi depuis balaa weekend beeg léegi. li ko mhm. dalee postu yi ba fas Mbao ña fa nekk démb. nañu génnee ak euh, li ñu ni ñu ni ñu songee ñi nga xam ni ñu songee autour à wane na euh, li leen wane nañ wane na ñoom mer gi ñu mer ak mer gu ñu meree ñi nga xam ne ñoo nekk suñu ay njiit di leen masaw bu baax Salma ba tey ñu dooree ak. Mhm. ci inondation bi rek la ñuy la tàmbalee ak kii di Thierno Alassane Sall république des valeurs posté ci compte Twitter am ñaawlu li nga xam ne mooy gestion wu ñi nga xam ne ñoo fare ci nguur gi ni ñu doxalee ci plan comme ni ñuy faral di def rek comme chaque année plan Orsec bi ñuy wax ak lu ni mel ngaaññi leen te it euh, ginnaaw juróom-ñeent ginnaaw ñeenti at ñuy plan décennal bi nga xam ne ñu ngi ciy nekk euh, li ab ci tënk daal moom euh, Thierno Alassane Sall la mu fësal mooy laju teef ñi nga xam ne ñoo yor wàllum inondation bi fii ci Sénégal mu ñaawlu ko tey di masawu sénégalais yi. Mm. yow Salma. Mm-hmm. ba tey rek ñu woy ci euh, mbirum waali Wally ko Seck muy mm-hmm. euh, artiste euh, woykat gannaaw bi ñu toogee ay. ci weekend bi mu fësal ab vidéo bu nga xam ne kii di Akon daf ko ñëwoon seet si mhm. ci ab pàttali rek ci ab fàttali moom eh, Akon gannaaw ay at ci ginnaaw moom balaa ko sekk ne toogoon na ci benn plateau ba xam xamle ni euh, dafa bëggoon ab link kii di Akon mu jàppale ko foofu lay ci États-Unis mais daf ko ni na dem góorgóorluwaat gën a liggéey gannaaw ba mu ñaawloo loolu mu mel ni euh, changement am na mhm. ndax fësal na ab vidéo boo xam ne wane na ni ñoom ñaax ñu ngi waajal lu garaaw lu mag mhm. mu mel ni euh, mbir mbir maa ngi xeeñ neex xamuñu lu mu doon nag ab jiwoo lay doon wala investissement li ci kanam raw li gën dinañ ci ñëwaat. Mhm. incha allah nekk na lu am solo ah mhm. gis nañ vidéo bi dañ koy rafetlu rek bëggee ko rek parce que c'est deux sénégalais. Mhm. donc bu ñu àndee def link def featuring wala lépp luñ mën a waajal rek en tout cas en sent dina nekk. fierté Séné sénégalais la sax nag. ba tey Salma ak euh, yi xew ba tey ci mbirum ci réseaux sociaux yi ki di artiste euh, muy euh, Mia Guissé di bokk ci Mabo. gannaaw ba site internet yëpp fësalee ci seen euh, toile que ni mhm. moom dafa jeex dafa wàññeeku commentaire yu ne di jaabaa jonge ci moom moom euh, moom kii di borom këram di info génn na mhm. wax ci boobule mbir ndax euh, nee na ñoom sénégalais yi ak ñiy wax ci boobule mbir seen yoon nekku ci bu ñu mhm. dugg boo xoolee ba si biir doon na loo xam ne lu ko nakari la te moom sax bi mu àddoo moom soxna si gisee nee na ci mbirum santeem la moo tax mu wàññi te it fas na yéene di wàññiwaat yeneen 5 kilos mhm. kon ñoom ñi nga xam ne ñoo nekk ci internet bi di ŋàññi lu ne mel ak yooyu moom jëkkëram nee na seen yoon nekku ci bu leen ci dugg mhm. mu ngi noonu Salma wax na dëgg xam nga nag Sénégal dañoo mën loolu temps yi dangaa jeex temps yi mhm. dangaa am yaram waaye yow kañ ngay am jëkkër yow yaay takk sa bopp kañ ngay am doom xam nga dañuy dugg ci sa vie privée nit ki moo am choix de vie wam bu fekkee loolu la bëgg borom këram bëgg na ko neex na ko léegi c'est quoi le problème waaw xam nga le public il est aussi xam nga euh, nañu waxante. mais coach gis nga public ma rek dama yàq dama ne le public eh, mais Aliou Sow temps yi am yaram Aliou Sow temps yi day solu mhm. Aliou Sow temps yi dafa mais mais non. Euh, benn critique la gis nañ ko jar euh, mais am na ay temps fii. neewoon nañu ko Viviane dafa euh, wax Viviane dafa gas. dafa ras waaw amoon na ñu ko fi doon wax. du léegi de. Euh, coach non non non euh. après bon dégg nga ñii di coow li naan non non léegi màgget na Viviane ñëw bees tàq. mais sénégalais xam nga yooyu non non. da lay def ay yoo xamante ni c'est-à-dire boo amul un mental fort. xam nga lan mooy tàggat. gis nga moom jëkkëram bii nekk nii di tontu. loolu mooy tardé. mais ay artistes bu mu tontu xoolee bu mu tontu na liggéey liggéeyam man dama koy conseiller. Mm-hmm. nga ànd ak soxnaam ñu liggéey seen liggéey. Mm-hmm. dem continuer. bañ di tontu yooyu. man la laa <laughs> la. ñu terminé ko rek Salma ak euh, kii di Mame Goor Diazaga gannaaw ba ko suñu naataangoo yu euh, Buzz Sénégal non. sans limite plutôt seeti ji am ak moom ab euh, interview moom euh, borom jazakalisé fësal na ab candidature am nee na ci meeru euh, Rufisque loolu coach xam naa ne di nga ci àddu léegi nee na dafa bëgg a nekk meeru Tëngéej hmm. fësal na it ci interview boobu ay programme yi mu am ndax nee na fas na yéene jàppale jigéen ñi ak tefes yeeg yooyu jafe-jafe yi nga xam ne dafa nekk dafa am foofu foofule ca Tëngéej hmm. gannaaw loolu it àdduna ci mbirum Ousmane sonk bi nga xam ne moo fi mujjee woon am ci Euh, mois de mars bi ñu jógee mu mel ni ba tey pënd ba wureegul ci entre ñoom ñaar ndax euh, dikk na ci wax na ci te it euh, di soññuwaat ndaw ñi que ñu bañ a topp Samba boo yéeg ak dof noonu la ko waxee du samay kàddu kàddu maam góor la moom jazakalise nee na bu xale yi topp ñi nga xam ne dañ leen influence ci ñuy nekk di dugg ci loo xam ne naka sudul noonu la mm-hmm. gannaaw loolu it nee na it nañu góorgóorlu jéem a xool porté choix bi ci moom ndax moom fas na yéene doxalee loo xam ne lu normal la jëmalee foofu di tëngee euh, kanam. Mm. Salma. xam man man appel bu may lancé man tëngéej laa bokk tëngéej laa dëkk dama ne waa tëngéej mm. ñoom xam nañu li ñu dund. Mm-hmm. xam nañu li ñu dund. Mm-hmm. xam nañu nag lu baax ak lu bon. waaw mhm. man en tant que citoyen rufisquois li may wax mooy loolu yo képp koo xam ne Tëngéej nga yeewoo dégg nga nga nar xam nga yow dëkk bi nu mu mel. Mhm. xam nga nu mu mel xam nga lépp nu mu nu muy doxee. Mhm. Euh, ñu moytu ñoo xam ne bu euh, moment yii lañ leen di gis moment yoo xam ne gisuñu leen woon. am na ñoo xam ne bi daaxi gisuñu leen woon de. nañu moytu nag. te moom sax coach dafa mel ni bi mu ko euh, dem ci koo xam ne au moins sentir nañ ko euh, chaque année ñu ngi ko doon gis te amuloon élection amuloon dara nangam man loolu laa wax ci waa Tëngéej. Mhm. nañu moytu lool parce que man gis naa gis naa ñëpp a ngi jóg. Mhm. façon bu nekk gis naa leen. Mhm. ay ñoo xam sax man maa leen tane. am na ñoo xam ne au nom de Dieu kenn du leen gis. en tout doy na waar loolu moom je pense que du tëngeej kese sax mais nekk na ay kàddu yoo xam ne ñun ñëpp ci Sénégal communauté euh, commune boo mën a ne war nga cee mën a bàyyi xel tànn sa maire bi gën ci yow. laaj bi samp ba tey Salma mooy est-ce que moom. Uh, daanaka taxawaayu taxawaa taxawaayu na taxawaayu maire foofu la ca Tëngéej loolu la ñu bëri di laajte mu mel ni que comme uh, weekend bi li ko xawoon a uh, euh, li xawoon euh, bari ci weekend bi rek mooy wàllum inondation yi sion yeeg yu ni mel mhm. moo waral tey xam na actualité yi xaw a cëkk tuuti rek mhm. waaye teewul ba tey dañuy dolli di kontaan ci téléspectateur u leer jamono am mbégte ak contentement di leen remercier aussi ci ni ngeen di teewloo mhm. euh, télé bu mag bi waaw allah am na solo ñuy gërëm jeeg bu ci rukk bi jaañ ah. naa waaw kay kenn du moom sama waaj <laughs> suñu yaay booy ñu koy ñaanal longu bi mu yàgg fi loolu téwéer donc mu mel ni ko présenté mucc na ayib. Mm. te yow tam kenn demul nga des da ngaa dégg. daal lu mu ayisa jox ko ñaar téeméer. donc ah 1000 francs nga may may nii. ci xaalis bi ma la jox 300 bi. <laughs>